Allah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 mbokki biir réew meeg biti réew asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellu siwaat nanu ci jotaay bi nu miinoon di wettalanteeg yéen muy jotaayu daara daaray sëriñ Mor Jóob waaye sunu bindu daara ji tey di wéy rek di nafar ak yeen muxtasar bu Cheikh Seydi Abdurahman al Akhdari waaye ñu di ko nafaree ci kitaabul Akhdari fi thawbin jadid muy mbubb mu yees muñ solalaat Lakhdari yu Sëriñ Moor Jóob ak njabootam gi koy jàppale ci daara ji di ko tasaareel lépp lool ab jullit war na koo xam te loolu di taxawaayu ku ñu topp ku ne ña war a topp lay seeni farata warutu leen a réer yow mi ñu topp yaleen ci war dimbili looloo tax sëriñ moor tabaarakallahu dundam gépp yitteem lépp du tàyyi du sonn du toqi du bàyyi ci dinu fàttali sunuy farata waaye di ko fàttali waale sax xëy na koo xam ni xamoo sëriñ moor sëriñ moor amaana xamu la waaye jullit nga foo fekk njariñ yaay boroom muy jël yooyu di ko tasaare ci àddina bi waaye di ko def li wajhillahi taala xaasatan tey tabarakallahu ñu war a indi ci jotaay bi bu ñu duggee ci biir téere bi dana am fanweeri mbir ak ñeent yooyu dana di gaar kiy julli te loola dañu naan la garawul yàqul sa julli du waral xabla salaam du waral baada salaam yooyu yi ci laxdari yu andi moom ngay dégg saa bu leen andee rek ni fala sujuda alayhi mbaa mu ni fala shay'a alayhi loola garaawul dara newu ci mbaa mu ni la muxtafarun loola lu ñu jéggale la lu ñu mën a pardonné la kii julli du ci am daanu yàq julleem waaye du ci am itam punition wu réparer julli gi du waral xabla du waral baxda du yàq julli gi yooya fanweeri mbir la ak ñeent fanweer yooyu ak ñeent ñaar dana di dal kiy julli jaare ci fàtte fàtte ñaar yi may njëkk wax fàtte da cay feeñ waaye ñu ni la garaw dana ci am ñaar yoo xam ni ci dut la lay dikkal ci sikki sàkk ci mbir am mbir xel yaar am na lool dana la di gaar ci xel yaar ñu ne la garawul am ñaar fukki mbir ak juróom yooyu juum dolli dara la waaye yooya ngay dolli waralul xabla waralul baada yàqul itam sa julli yooyu juróom-ñeent yi dolli mbir la waaye mbir ma di ak wax lu làmmiñ dolli la ya ca des dolli jëf la muy seize seize yi ak neuf boo leen boole daa am vingt cinq vingt cinq yooyu yëpp juum dolli la waaye dara newu ci dana ci am ñett yoo xam ni kii la lay gaar waaye dana ci am ñaar yoo xam ni jullit mbooloo lay gaar yooyu boo ma toppee incha allahu taala bu ci nekk daañ la ko tegal palaasam nga xàmmee ko booy julli bu ci yooyu benn gaare nga xam ni yii lañ ma ni woon dara waru ci yàqul julli du waral xabla du waral baada benn ba mooy bi téere bi naan man naqasa alfadaila fala sujuda alayhi kuy julli juum wàññi ngëneel ngëneelu julli waxoon naa la ko lu mel ne yëkkati gi li nga yëkkati loxo yi jamono da ngay kàbbar kàbbaru armal yëkkati googu loxo yi di yëkkatiku loolu ngëneel la loola nga juum ba indaale ko lu mel ne rabbana walakal hamdu wax jooju ngëneel la moom nga ndiwul lu mel na jàng xunóot loolu nga ndiwul lu mel ne tasbihaat yi daan am ci biir rukon yi biir sujjóot yi yooyu ngeen diwul ngëneel yooyu wàññi ci benn mbaa nga wàññi ci ñaar mbaa nga boole yépp wàññi indiwoo ci benn fala sujjóoda alayhi sujjóot du ca war yarul sujjóot te yàqul sa julli ñaareel bàyyi bi téere bi naan man nasy sujuda al qabliya hatta sallama sajada in kaana qariba wa in aw xaraja min al masjidi batala sujudu wa tabtulu salaatu maahu in kaana ala thalaasi aw akthar min zalik wa illa fala tabtul na koog daa wàññi ñu ni ko dangay ngay xabla boo fàttewul waxoon yi ngay wàññi mu jara xabla léegi nag bi mu waree xabla mu fàtte ko ba sëlmal xanaa kon mënatul nekk xabla ndax xabla mooy avant ngaa sëlmal yow nag fàtte nga ko tey ba sëlmal waaye ndeem fi nga sëlmalee rek immédiatement ci nga fàttaliku ni xabla waroon na la dañ naa laa faf ko def baada indil ñaari sujjóot yi foofu bu dee noonu la demee ay ca jàmm ni ñoy danga waroon a xabla juum nga ba sëlmal nga faf ko def baada jàmm nee na ñooy dégg nga ko waaye loolu mooy bi koy fàttaliku ak bi ngay sëlmal yàggul bu doon yàgg na nag waroon ngaa xabla ba sëlmal fàttaliku woo ko fàttaliku woo ko fàttaliku ba mu yàgg yàgg ne woon naa la jóg fi nga doon jullee yàgg la mbaa jógagoo de waaye bi nga sëlmalee bi nga koy fàttaliku toll na ni ba nga kàbbareeg bi nga sëlmalee mbaa ëpp ko loolu yàgg la bu dee diggante boobu jaar na fi nag te kon yàgg am na dañ lay laaj waaw li nga wàññi woon sax ba war koo laal ñaata sunna la nga xool bu dee yëg nga ni ñaari sunna nga wàññi lu mel ne jotaayub taaya ak baati taaya ya fa waroon a jàng moom nga bàyyi woon jullit timis la sa ñaareelu rakka nga juum jóg taxaw au nga toog taaya nga bàyyi ko juum ba jóg taxaw wàññi nga toogaay bi ak baati taaya yi pourtant waroon ngaa xabla moom nag nga fàtte ba sëlmal fàttaliku woo ko ba yàgg na nga ne ah comme ñaari sunna la xabla waroon na ca gaa waaye comme fàtte naa ko ba heure bi fala sujuda alayhi sujud waratu ca du bu ñuy dabaatal itam dara sikku ci waroon nga koo xab la mais danga koo fàtte fàttaliku woo ko ba yàgg na baal nañ la ko julli gi itam validé nañ ko waaw buñ la nee li nga wàññi woon ba war koo xablaal ñaata sunna la nga ne ah, ëpp na ñaar nag kon mat na ñett xanaa jëm kaw ah su boobaa dañu naan la yow waroon nga ko xablaal de nga dama ko fàtte ñu ne la ah faf ko def baada comme yàggul nga ah, yàgg na de ñu ne la ah, kon julli gi yàqu de kooku kaawam ñi koy misaal ci ki nga xam ni daa waroon a taxaw jàng saar loola la fàtte daa jàng fatiha rek waroon taa waroon caa teg dara mu juum rukon bàyyi na taxawaayu saar bàyyi waale saar bàyyi waale yàllu wala biral gëm waroon a jàngee saar ñu ne ko yow li nga wàññi mat na ñett kon yow danga ko waroon a xablaal comme fàttee nga ko te yàgg na julli gi lépp day yàqu nga war a julliwaat kon kaa bi fii li ngay jàpp mooy kiñ naan li nga def dara newu ci mooy kii waroon naa xab la ndax wàññi ne ñaari sunna waaye da koo fàtte ba mu yàgg kooku la sujud alayhi sujud boobu du bu muy dabaatal julli ga itam dara nekku ci mu ngoog sunna yi ngay wàññi boo ci wàññee ñaar rek war nga koo laal bu dee ci ñaar la yem nag xabla googu nga fàtte loolu lañ pardonné mais bu dee yëg nga ni li nga wàññi mat na ñett de loolu xablaal rek mbaa julli gi yàqu dégg nga de ñetteel ba ak ñeenteel ba ñi ngi aju ci sikki sàkka dute kenn kaay man sàkka fi salaami sallama in kaana qariba wala sujuda alayhi kii di julli ba yàgg xel mi xel yaar ci man ma man sëlmal naam sëlmalu ma loolu gaar ko in kaana qariban bu dee bi ko lii gaaree ak bi muy mujjee yëg connexion ak julli gi yàggul na sëlmal rek maanaam moom fi mu toogoon di taaya taaya war a sëlmal amaana sax baaraam bi mu doon yëngal ci taaya bi dakkagul mu ngi koy yëngal ba léegi ni mu toogee woon di taaya soppeegu ko xëy na am na lu ko gaar ba xelam échappé ñëwaat muy dute nag ci man sëlmal naa wala sëlmaluma ci moment boobu fafal sëlmal bu dee nii la demee fala sujuda alayhi doo ci xablante doo ci baax daante julli gi yàquwul waaye bu doon yàgg na kay yooy dinga ko dégg ca buñ lay tuddal yi yàq julli nga julli suba dugg sa oto xëy liggéeyi dem ba sa bureau naan waa man sama julli gi sëlmal naam sëlmaluma te naan laa julli waatal dégg ñeenteel ba moo di man sakka fi xadasin aw najaasatin fa tafakkara fi salaatihi qalilan summa tayaqana tahara fala shay'a alayhi kiitam itam day dute ci waaman sànq dem naa ci toilette yi sànq itam jàpp naa mais ban moo ci jiitu laa xamatul damaa dem ci toilette yi jàpp te kon jàpp laa ngi fi wala bi ma jàppee ba noppi laa dem ci toilette bi te kon jàpp néew fi ñaar yooyu nag ban moo ci jiitu la xamatul te day am nga ni tekk di xalaat ci biir julli gi ñaar yooyu ban moo ci jiitu ba yàgg nga confirmer ci sa xel ni ah bi ma jugee ci toilette bi laa jàpp mu wóor la ni kon njàpp laa ngi fi ay ca da ngay continuer julli rek dara nekku ci dégg nga ko kooku mooy kii werante ci toj le naam toj lewuma wala sax toj le naa fi jàpp naa fi ñoom ñaar nag ban moo ci jiitu laa xamatul nga xalaat ci benn pëti moment door a wuur ni mu door laa wuur ni ak laaba ngi fi ak njàppa ngi fi loola fala shay aleyk dara warul ci dégg nga ko mbaa yére bi nga sol di julli palaas bi nga taxaw di julli ci biir julli gi jekki nga jekki rek xel mi ni yar ci waman yére bii bi mooy fopp xale bi sànq yëg ni kuus bi soppiku na tooy na yére bii laa soloon wala duwoon bii nga xalaat ci diir bu gàtt sa xel door a confirmer ni yaa ah, duwoon bii diggante boobu nga arrêté lépp julli gi di xalaat ci ban yére laa soloon bi may fob xale bi te boobu yàq na kuus bi gannaaw gi nga am confirmation ci sa xel ni duwoon bii kon wóor na la ni bii moom laab ma diggante boobu nga ci xalaat noonu te muy diggante bu gàtt loolu jéggal nañ la ko moom itam fala shay alayka dara waru la ci du xabla ni baada yàqul itam sa julli juróomeel bàyyi man zaada suurata fi rak'atayni al axirataini sujuda alayhi koo xam ni day julli jullig ñeenti raka mbaa jullig timis ñaar rakka yu mujj ya wala benn bi mujj ci timis dañ fa santaane faatiha rek foofa nag nga juum baa sax dalaa neex yaa ko tey nga ni naa ci dolli aw saar dolli saar woowu nga ci def doonte yaa ko tey fala shay alayhi dara newu ci mastamaak boo juumoon rakka bu ñu recommandé faatiha rek boo sawaree ba teg ci saar garawul boo juumee ba teg ci saar garawul dégg nga ko juróom-benneel baay man qaraa suuratayni aw akthara fi rakaatin waxida aw xaraja min suuratin ila suuratin aw rakaa qabla tamaami suurati ñii ñëpp fala shay'a alayhi fi jamici dalik kii day julli songu aw saar tari ko ba jeex mu songu beneen jàng na saar ak morom ma wala saar ak moroom ya mbaa mu songu aw saar saar wa jeexagul mu ni ko fa dem ci weneen saar donte moo ko tey wala mu songu aw saar saar wu jeexagul murukon yii yëpp boo ci def fala shay'a alayhi dara waru ca ngay julli daal di tari fatiha bam jeex nga ni qul a'udhu bi rabbil falaq malikin naas ilahin naas yaa ngi génnee ci saar wi dugg ci wi loolu dara newu ci mbaa nga dugg aw saar inna aataynaaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar daal di rukon saar wi àggagul te moo ne li ci des bareetul de waaye nga doyloo li nga jot a jàng aywa baax na fala shay alayhi yooyu dara newu ci juróom-ñaareel bàyyi man tadakkara sirra awil jahra qabla rukuci aada alqiraa fa in kaana dalika fi surati waxdaha aadaha wala sujuda alayhi kii daa waroon yalu mu fàtte ko di biral mbaa mu waroon biral mu fàtte ko di yalu waaye loolu ci saar rek la ko dal te avant muy rukon lunku di rukon ji rek yëg na ni mi ngi doon biral te daa waroon yalu mi ngi doon yalu te daa waroon a biral te ci saar wi rek la ko dal dañ ko naan bul rukoogum jàngaatal saar wi ni nga ko war a jàngee mu yalu ko ndem da ko waroon a yalu mbaa mu biral ko ndem da ko waroon a biral ay ca continuer rukoo dem mottali julleem moom itam fala shay waru ko ca bul fàtte nag ni ndem ci saar rek la ko dal juróom-ñetteel baay man jahara fi lqunuuti fala sujuuda alayhi walakin yukrahu amduhu am na lu ñuy wax qunuut moom la ñuy jàng ci ñaareelu rakab suba qunuut moomu dañoo taamu jàng ko sirran ci yalu yow nag nga juum biral ko moom qunuut da juum biral ko dara newu ci yàqul julli gi waralul xabla waralul baada bu dee yow la neex nag yaako tey ni naa ko biral ba te yàqul julli gi de waralul xabla waralul baada waaye nag def nga luñ doon tere def nga luñ doon tere konoot kenn du ko biral te tey ko dañ ko sib waaw juli nag waaye def nga luñ doon tere juróom-ñeenteel bàyyi man xalita fi lqiraati bi kalimatin min gayri alqur'ani sajada bacda salaami wa in kaanat min alqur'ani fala sujuda alayhi kii day tari ci biir julli gi waaye mu dugg aw saar di tari ba yàgg mu dugal ci beneen baat boo xam ni amul ci saar wi beneen baat boo xam ni amul ci aaya bi waaye baat boobu mu fi wax noonu am na ci kaamil bi de te yàqul maanaa mi de soppiwul wax ji de waxu fi lu aay de la mu wax alquran la te lim jot a wax ak lii mu juum doli ko ci mënees na leen a dendale su boobaa yàqul itam maanaa mi kooku fala sujuda alayhi kooku fala sujuda alayhi example yi bare na ca la bokk kii julli tari fatiha daal di songu saaru mel na arayta alladi yukaddibu biddiin bimu ne arayta alladi yukaddibu biddiin fa dalika alladi yad'u alyatim wala yaxuddu ala taami almiskin wa taakuluuna turaasa aklan lamma li dong daar di wax runge daa wax baat boo xam ne daa am feneen ci biir kaamil bi xel mi daw ca baat booba waaw dégg nga mbaa kini li ilaafi quraysin ilaafihim rixlata alchitaai walsayf falyacbudu rabba hada albayt daal ni alladi yukadibu biddin fa dalika alladi yadu alyatim alladi moom feneen xel mi rëcc daw ca foofa li feek soppi woo mi te baat bi nga wax am na ci kaamiil bi loola yàqul julli gi dégg de fukkeel baay man naadaahu ahadun fa qaala lahu subhaanallah kuriha wa saxat salaatu kii day julli jekki-jekki nu woo ko jaar ci turam waaw julli jekki-jekki dégg ku ni la sëriñ Omar Ba nga daldi ni subhanallah ngir mu bañ a dem defe ni danga nga mais nga def ko ko rek pour mu xam ni yaa ngi fi waaye dangay ngay julli loola lañ ni def nga lu ñuy aaya de waaye nag àggul ci yàq julli gi àggul ci kaay xab la àggul ci kaay baax da dégg nga baag benn mooy man waqafa fi lqiraati walam yaftax alayhi ahad taraka tilka al wa qaraa ma baadaha fa in taaddarat alayhi raka wala yanduru mushafan bayna yadayhi illa an yakuna fi lfatihati fala budda min kamaliha bi mushafin aw gayrihi wala sujud alayhi kii day julli bi muy tari mu gàgg kenn gàggantiwu ko ma ni ko jàngal beneen aaya comme bii moo ko loo ko te kenn gàggantiwu la ndekete beneen aaya it jàppandiwu ko bii la mokkaloon te ci la gàkk ñu ne ko bu dee li nga jot a tari mat nab aaya doy lool loolu taru ko yooyu yëpp bu ci am dara newu ci tari nga ba yàgg nga gàkk xoolal leneen loo mokkal nga dem ca bu fi leneen loo mokkal newul waaye li nga jot a am mat nab aaya rukon wal su boobaa dara newu ci dégg nga ko bu doon nag ci fatiha la ne woon naa laa fatiha nag moom day mat moo xam dañ lay gàgganti moo xam da ngay xool yi ab téere bu la gën a jege te nekk ci sa penku moom fatiha moom day mat rek yow itam ci fatiha effort yi ngay def pour dem jël téere ubbi xool fatiha bi baat bi nga gagee ban baat moo ci topp ngir nga am fatiha bu complet bu wér loolu effort yooyu nga def dara nekku ci yàqul julli gi waralul xabla waralul baada sab téléphone mi ngi ci sa poos am nga ci application bu fatiha ne nga génnee ko génne application bi xool fatiha bi baat bi nga gagoon nga xam baat bi ci topp nga jàll loola itam dara ne nekku ci dégg nga ko fukkeel baag ñaar mooy man sami'a dikra muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi salaati fa salla alayhi fala shay'a alayhi sawaun kaana saahiyan aw aamida aw qaaiman aw jaalisa ki daal day julli ba yàgg mu dégg turu sayyiduna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ca daan topp ci biir julli gi mu teg ci sallallahu alayhi wa sallam loola itam nekku ci moo xam da koo tàmm tàmm tàmm te bi mu koy wax tey tayu ko tàmm moo ko ko wax loo waaye bàyyiwul xel sax ni mi ngi woon ci julli kon bi koy wax daf ko wax rek saahiyan dara nekku ci wala bi koy wax da koo wax amidan day julli xam na ni mi ngi julli waaye muy dégg ku doon noddu xëy na wala ku doon tàgg yonent bi xëy na ba tudd turu miimun xaaun miimun daalun mu wax sallallahu alayhi wa sallama loolu dara newu ci dàqul julli moo xam dalaa fekk taxaw moo xam dalaa fekk toog foo ko mën a waxee yàqul julli gi waaw sallallahu alayhi wa sallam fukkeel baak ñett moo di man atasa fi salaatihi fala yastaxilu fi lhamd wala yaruddu ala man sammatahu wala yusammitu aatisan fa in xamida allaha fala shay'a alayhi kuy julli ba yàgg mu tissooli tissooli dañoo bëggoon ku mu gaar nga teg ci alhamdulillah léegi nag bi mu lay gaar yaa ngi ci julli yow jarul comme yaa ngi ci julli jarul alhamdulillah jaru ko bàyyil noonu waaye boo fa tegoon alhamdulillah nag yow itam fala shay'a alayka loolu nga def dara newu ci kuy tisooli dañoo bëgg nga teg ca alhamdulillah waaye bu la fekkee ci julli jarul alhamdulillah boo sawaree ba teg ko ca mbaa njuumtee tax nga teg ko ca dara néew ci yàqul julli gi waralul xabla waralul baada waaw ki dégg ku tisooli ni alhamdulillah moom dañ ko ni woon waxal kii tisooli ba ni alhamdulillah nee ko yarhamukallah moom itam bi mu déggee nga tisooli dégg na alhamdulilah mu muni la yarhamukallah yow moom di julli dañ la waxoon boo tisoolee ni alhamdulillah ku ni la yarhamukallah nee ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum waaye tey comme yaa ngi ci julli ki leen yarhamukallah matul nga naan ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum waaye boo sawaroon ba wax ko ko nag boo juumoon ba wax ko ko nag yow itam dara nekku ci dégg nga itam dara nekku ci noona itam yow yaay julli dégg keneen ku ti sooli ni alhamdulillah xanaa boo julliwul woon yaa ko yoreel yarhamukallah tey yaa ngi ci julli matu ko nga juum nag ni ko yarhamukallah mbaa sax juumoo yaa ko dégg rek mu ni tiis daal ni alhamdulillah nga ni ko yarhamukallah ci tayaf loola itam fala shay alayka dara waru la ca dégg nga de fukkeel baag ñeent mooy man qaama min rak'atayni qabla al-julusi fa in tadakkara qabla an yufariqa al-arda bi yadayhi wa rukbatayhi raja'a ila al-julusi wala sujuda alayhi kuy julli àgg ci ñaareelu raka war a toog nga juum di bërbëri mel ne kuy bëgg a jóg waaye loxo yi ah mi ngi ci suuf ba léegi wala bëti oom yi mi ngi ci suuf ba léegi doonte yaa ngi doon wàcc ngir jóg waaye kawee goo de ndax loxo yaa ngi ci suuf ba léegi wala oom yi mi ngi ci suuf ba léegi dañ la sant rek dellu rek reposé wu dellu rek toog bu dee nii la demee nga dellu rek toog bu dee li ci lii rek nga yem fala sujuda alayhi sujud waru ca waaj nga nag di bër bay bëgg a jóg waaye nga fàttaliku ni fii jotaay la nga daal di toog indi jotaay bi loola dara nekku ci yokkoo wàññiwoo aywa fukkeel baag juróom mooy man ansata li mutahaddisin qalila fala shay'a alayhi kuy julli ba yàgg nga dégg kuy wax te wax ja am ca lu la intéressé nga ni pat continuer woo julli gi ci wax continuer woo ko ci jëf xanaa may nopp ki doon wax nga def ko ab diir door a continuer sag julli loola dara newu ca moo xam kii wax ci rajo bi nga ko dégg mbaa ci télé bi mbaa ko doon romb ci mbedd mi rek yaa ngi dëkk booyo boo booyo sekk fala samay maam dëkk ba kàbbar di julli dégg ku naan waaw booyo dégg ngeen la fa xew ma ne ah gan booyo mais déglu noonu ñu ni ñoom de nee nañ taw la nañ tey mu continuer sama julli loola lañ ni dara new ci dégg nga patt googu ma ni patt rek continuer wu ma julli gi ci wax continuer wu ma ko ci jëf xanaa di déglu information bu fi jaar rek loola lañ ma jéggal ndax lan diir bu néew la dégg ko booyo sekk gannaaw Màkka ak Medina ak boo yaa ma gënal ci kaw suuf <laughs> fukkeel baag juróom benn ak fees hmm. min baadi makkata hmm. ardul qudsi hmm. taybata faas ak tiwaawan xiltuha bara xayral madinati <laughs> mu fukkeel ba ak juróom benn man ashaara fi salaatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alayhi kuy julli am kuy wax ak yow mbaa sax kenn waxut ak yow yow yaa bëgga wax waaye li ngay wax mën nga koo junj ak sa baaraam mbaa sa bopp nga junjee ko ko ci sa baaraam mbaa ci sa bopp loola dara newu ci dangay ngay julli am kuy dem ne la ma xaar nga ni nii loolu mooy waaw yàqul julli gi waralul xabla waralul baada ma xaar la nga ni ko nii bul ma xaar demal loolu nga ko junj loola dara newu ci dégg nga ko ngay julli am ku jóg tàggoo bëgg a dem nga fotosu ko ni ko nii loolu mooy xaar ma loolu mooy ak junj ci sa baaraam mbaa ci sa bopp loolu dara newu ci waaw subhaanahu wa taala fukkeel baag juróom ñaar ne la shay a alayhi fi tabassumi kuy julli ba yàgg lu nexu jaar fi ci wax mbaa ci jëf nga daldi di muuñ muuñ say tuñ am nu def ñu xam ni yow mii ree nga bëgg waaye nag son génnul siiñ itam amagu fi bëñ génnul tuñ yi daal am na num def ku la seen xam ni ree bi waaje ñëw la ñuy seen nii bu dee ci muuñ googu rekk nga yam yàqagul julli gi waralul xabla waralul baada waaw moo ëppoon ci reetaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan muuñ rek fukkeel baak juróom-ñett moo di bukaa'ul xaasi'i fi salaati muxtafarun kiy julli alqur'an ji jàpp ko mbaa teewlu yàlla gi jàpp ko mbaa xelam dem ci bàmmeel jàpp ko mbaa xelam dem bispin jàpp ko yóbbee ko ay jooy jooy yooyu mooy bukaa'ul xaasi'a jooy yooyu lu metti metti metti metti nañ ko yàqul julli gi du waral xabla du waral baada na yam nag ci ràñngooñ rek ak xëqët lañ koy wax defe naa ni kuy jooy di def waaw bañ caa boole wooy <laughs> xam jooyatul tiit bàmmeel waaye xëy na bopp buy metti wala bëñ buy metti lay jooy man nag bukaa ul xaasi'i laa wax jooy yoo xam ne ragal yàllaa ko jur ci biir julli gi kooku yàqul julli gi dégg nga baag juróom-ñeent mooy man tasaaba fi salaati sadd faahu wala yanfusu illa fi sawbihi min gayri ixraaji xurufin koo xam day julli ba yàgg muy ëbbali mbaa bébbali na jël rek ginnaaw tenqam ub gémmiñam ko neexee mu jël loxol mbubam taf air boobu di génn mu yolomal ko ba mu génn ndànk bañ caa boole tudd fi luñ mën a bind bu fi làmmiñ wi prononcé benn lettre bu dee ngelaw li doo ngay génn loolu kenn déggu fi luñ mën a bind waaye boo juumoon ba prononcé fi luñ mën a bind a ah, loolu leneen mooy atteem waxoon naa la ko ci biir daara ji mook waxayam njuumte la baada yaa ko tey mu yàqu waaye man li may jàngale tey mooy yi nga xam ne dara newu ci mooy ëbbali gi jël sa loxo ub gémmiñ gi mbaa sa loxol mbubb ub gémmiñ gi ndax ngelaw li ndànk ba mu génn ndànk te tuddoo fi benn lettre loolu dara newu ci ñaar fukkeel ba mooy man tanahada fi salaatihi moom itam fala shay a alayhi koo xam ne day julli ba yàgg mu bëgg a fuddatu ba am bëgg foq yaram wi fuddatu yaram yi ni karaj fuddatu googu moom itam dara niwu ci bu ko booleeg nag moom it tudd fi luñ mën a bind ay ca léegi lim def wax la yemul ci fudd rek bu dee wax la boo ko tayee mu julli gi yàqu bu dee njumte la nga baax baada salaam ñaar fukkeel baag benn mooy aninul maridi muxtafarun koo xam ni dafa feebar tëdd amaana sax ci tëraay boobu lay julli mbaa mën na sax taxaw xay na mën na sax toog xay na waaye mi ngi ak méttit wu métti wu métti méttit wi yóbbee ko mi ngi binni mi ngi onk mi ngi julli waaye yaa ngi dégg man buy rukon ji ma buy sujooti noonu buy siggi noonu buy taxaw noonu binneem googu jooju mooy aniin jéggaleen nañ ko dara newu ci dégg nga ko wa tanaxnuxu fuddutu itam muy rek tanahudu moom itam muxtafarun waaye tanaxnuxu nag mooy fuddu gi ànd ak son fuddu gi ànd ñu dégg son bu mu àndal hmm, loolu mooy tanaxnuxu waaye boo tàllalu woon rek xëy na yax yi kay lañ dégg muy ràjji ràjji waaye gémmiñ gi ubbikuwul loolu tanahud rek la tudd waaye tanax nuxu nag moom day ànd ak ab son bu bu fudd gi di àndal boobu moom itam jéggale nañ ko de waaye baa waxoo fi son buñ mën a bind buñ ko mënee bind day wax la son boobu muy àndal boo ci jubloo déggloo ko nit ñi dangaa bëgg rek nit ñi yëg ni yaa ngi doon fudd waaye nag son bi du luñ mën a bind de hmm, lu mel noonu rek nga def loola ndeem da nga caa jublu déggloo ko nit ñi rek waaye bu la neexoon téye ko loolu def nga luñ sib sib gi sib gi nag àggul ci yàq julli gi dégg nga ko ñaar fukkeel baak ñaar la shay'a fi galabati alqay'i wal qalasi fi salaati dara nekkul itam ci kuy julli ba yàgg am waccu rëcc la walla gàll rëcc la dal di génn ndeem du sobe ndeem du sobe kuy julli ba yàgg nga gàll xam nga gàll mooy liir bu toll ci di nàmp léeg bu nampee lu ëpp boo ko tëgalee rek soow mi jaaraat ci génn gi mbaa ci bakkan yi génn lekk lu ëpp wala naan lu ëpp <laughs> dana ko di def lekk ci ceeb bu niin bi pare boole ci boisson gazé yi boo ko booleeg rukon siggi su jot siggi <laughs> bu yàggee lee nga gàll gàll moomu nag ndem dalaa rëcc dara newu ci te lii génn du sobe wàccu itam noonu te li génn du sobe wàccu léeg-léeg muy sobe léeg-léeg du sobe kañ ngay xam ni sobe la mooy li nga wàccu nii ba nga koy lekk ndax nii la meloon nga ni nii la meloon koy léegi laa añ jóg di tisbaar wàccu li ma añoon dañ naan la lii du sobe waaye booy julli timis kay wàccu la nga ndékkee woon xam nga ni melul tul noonu su boobaa sobe la dégg nga de bu dee sobe la nag génne lu mu tuuti tuuti julli gi day yàqu dangay da ngay julli ba yàgg nga génnee sobe waaye bu dee du sobe laa ni te dalaa rëcc du wàcc moo xam ne yaa ko tey wàccu xanaa dalaa rëcci loolu laa ni dara ni wu ci man iltafata fi salaati saahiyan fala shay'a alayhi wa in taammadahu fa huwa makruhun wa in istadbara alqiblata qutiati salaatu kuy julli di xéen xéeni iltifaatu mooy xéen xéeni bu dee bëte koy def bu dee jëmma ko def mbaa bopp def ko la olof di wax gestu ñaar yëpp nag arab xéen iltifaat lay wax da nga taxaw jëm penku nii di julli say bët ñu ni la fixé ko rek fi ngay sujjóot nga rombale foofu say bët yaa ngi taxaw yaa ngi jëm penku mais bët yi yaa ngi xool ci kaw yaa ngi xool ndeyjoor yaa ngi xool càmmooy loolu mooy xiin xiin loolu ci njuumte dara newu ci dangay ngay julli yaa ngi xool fi ñu la xool nga dégg tëll nga tiit rek aj bët yi di xool li ni tëll mbaa jëmul ci sa kaw ci njuumte noonu jéggal nañ la ko mais nag yaa ko tey lu yëngu nga xooli ko kuy ñëw nga xool kumu kuy dem nga xam kumu loolu lañ sib sib gi sib gi dara newu ci bu àggee nag ci xoolatoo li ci sa kanam sa ndeyjoor sa càmmooy waaye àgg nga ci xool lu ne woon ci sa ginnaaw kooku mooy istidbaar yow da mujj wan penku bi gannaaw su boobaa su julli yàqu na ku julli ba yàgg nga wan penku ginnaaw su julli yàqu na dégg aywa ñaar fukkeel ba ak ñeent man naasa fi salaati fala sujuda alayhi koo xam ne mi ngi julli waaye mi ngi gëmmentu lool sujud bi bu yàggee sax mu for bët imaam bi yàggee ci sujud bi daanaka bu naan allahu akbar allahu akbar jooju da koy yee waaye départoon na kooku mi ngi julli waaye mi ngi gëmmentu kooku bu julee noonu ak ngëmeentam loolu ba sëlmal julli gi baax na dara ñëw ci na yëpp ñëw rek na sujjóot yi ñëw na rukon yi ñëw taxawaay yi ñëw ñaar fukkeel baak juróom man jaala fikruhu qalilan fi umuri dunya naqasa sawaabuhu walam tabtul salaatuhu kuy julli ba yàgg xel mi daldi di génn julli gi dem ca marché ba ca liggéeyukaay ba ca soxna sa ca njaboot ya xaalis ba mu dencoon ca suufu ngeganaay ba xel mi daal génn julli gi moom dem feneen wëndeelu door a dellu siwaat ci julli gi wala sax jotul a dellu siwaat ba mu sëlmal kooku julleem gi liñ ko ci waroon a fay day manqué julli gi li mu waroon a def ci ruuxam day manqué waaye nag kenn du ko ni julli woo julli gi wér na waaw teewlu julli gi bi ngay kàbbar bi bi ngay sëlmal sa xel du échappé julli gi loola nit yàlla dëgg ko man moo tax kenn du ci dégg ni julli woo xel mi rëccee daal bokk na ci xikma looy def ci julli gi boole kook tudd yàlla moo xam da ngay wax allahu akbar moo xam da ngay wax subhaana moo xam da ngay wax samia moo xam da ngay wax assalaamu loolu xikma bi tax ñu programme ko noonu mu bare lool ci biir julli gi mooy bëgg bu xel mi rëccoon itam waxaatal allahu akbar mu xëccaat xel mi delloo si ko ci julli gi waaw boo rukoowee xel mi dem marché boo si génni sami allahu liman hamida li muy firi yàlla xam na la ca marse ba xam na itam li ci sama julli gi xel mi dem na ci liggéeyukaay ba boo ne allahu akbar li muy firi mooy place ba bureau ba oto ya marchandise ya alal ja yàllaa ko ëpp allahu akbar yi bare gi muy bare ci biir julli gi ngir rek di dabiwaat xel mi bu rëccoon ñu téyewaat ci ngalaab gi delloosiwaat ko ci orbitu julli gi loolu bokk na ci xikma yi tax mu bare ci biir julli gi ñaar fukkeel baag juróom benn man dafa'a almaasiya bayna yadayhi fala shay'a alayhi kuy julli ba yàgg nit bàyyi yoon wa fële bëgg a jaar ci sa kanam yow miy julli nga def nii sa loxo te ci mbaggam mbaa ci dënnam ñoddi mu jaar ci sa ginnaaw loola dara newu ci waaw nga def dara newu ci na fekk nag taxawoo ci yoon wi di julli bu la wóoree ni ci yoon nga taxaw wutal lañ santaane woon samp ci sa kanam muy saatir waaye yow yaa fi bàyyi saatir bàyyi fi dem ba ci sës sës ci xibla bi xanaa ñëw ba ci diggu yoon wi kaw tali bi nga kàbbar di julli su boobaa ku jaar ci sa kanam yow yaay am daanu yàlla dégg nga ko waaye ku fa bàyyi yoon wi nag bëggoon a jaar ci sa kanam kooku mooy am daanu yàlla kooku nag lañ ni boo ko mënoon a bëmëx mbaa nga ñoddi ko dara newu ci mu bañ a jaar ci sa kanam ñaar fukkeel ba ak juróom-ñaar man sajada ala shiqqi jabhatihi aw sajada ala tayatin aw tayatayni min amamatihi fala shay'a kuy julli jekki ci sujoot wala mu teg jébi ci suuf waaye wetu jébi la teg nii la def nii la sujootee mbaa bi muy kaala yooyu naari gànnaar yi def seen bopp yi dañ koy takk nii ci jibi mu wër bopp bi moo xam benn kaala rek la wala ñaari kaala benn taxañ mbaa ñaari taxañ lu taxañ yi bare bare bare nga xam ne bi muy sujjóot tegul deru jébi mais kaala gi la teg waaye deru jébi sës ci kaala gi yu yëpp dara néew ci dégg nga ko sujjóot jébi tege ci suuf mbaa wetu jébi tege ci suuf mbaa wet gi su jot nga dégg nga ko loola dara newu ci ñaar fukkeel baag juróom ñett mooy man salla bi xariirin aw dahabin aw saraqa fi salaati aw nadara muharraman fa huwa aasin wa salaatuhu saxiixa kuy julli sol malaani sooy xariir ay yére la yu amoon buur yi ak seen soxna yi ak seen doom yi niti àddina yi dëgg dëgg dëgg ñoo ko daan sol ñu xaraamal ko ci góor mu koy sol léegi góor gi ko sol xanaa kon sol na lu xaraama sol mu sol lu xaraama sol ba noppi di julli di jullee yére yooyu ñu ni sol ko daa xaram mbaa moom góor mu takk ay takkaay lu mel ne or góor di ko takk lum tuuti tuuti lum bare bare daa xaram góor takkaay xaalis lañ ko ci may xaalis itam lam cay takk bu dee jaaro la bu mu ëpp wasnu dirhamayni bu dee jaaro la bu dee lam la mayees na ko ko waaye bu dul xaalis dañ koo xaraamal ci góor or la wurus la góor di ko takk daa xaram amu ci benn jaaro xanaa ñaari jaaro la ci am daa xaram léegi loolu xaraama takk yow góor nga takk ko ba noppi di ko jullee yow moom itam sa julli googu dara newu ci mbaa xaram xaraam xaraam xollu xaraam daa xaraam xollu xaraam mooy lan misaal mi gën jege mooy góor guñ ni lii mooy awraam na ko sàng sàngu ko bàyyi gi mu ko bàyyi ci biti lu xaram la yow mi koy xool jëmmi xool gi lu xaram la jigéen ñu ne ko lii ak lii sàng ko boo ko bàyyee ci biti lu xaram la bàyyi gim ko bàyyi ci biti lu xaram la yow mi koy xool jëmmi xool gi lu xaram la léegi nag nga taxaw ci sa balcon mbaa ci sa buntu kër jàkkaarloog mbedd mi góor gu mel noonu jaar fa mbaa jigéen ju mel noonu nga di ko xool te yaa ngi julli kon yaa ngi xool lu xaraam ànd ak lépp yaa ngi julli de julli gi moom dara sikk gu ci mbaa góor giy julli ak sax jigéen bu ko neexee waaye ci biir julli gi mu sàcc fi ki sàcc ci biir julli mu koy jàngal xale yi dama leen di wax ni ki ci sàppe bi ci deuxième sàppe ki ci première sàppe bi bi mu sujootee wala bi mu rukoowee pièce waddee ci poosam daal di bërëngu ñëw ba ci sàppe bi ci ginnaaw nga yam ci daal ciy joggi ñu toog nga for ndànk def ci sa poos mu sëlmal moom mi ko waddal naan foroo leen foofu sama pièce nga naan ko xoolal foofu te mi ngi ci sa poos sàcc googu ki koy sàcc mi ngi woon ci biir julli gi bi muy sàcc ànd ak lépp nag yi ma fax yépp ki ko def ak mooy yàlla la def def na lu jara bindal bàkkaar ànd ak lépp wa salaatuhu saxiixa julleem moom na maa ngi wax rek yi nga xam ni def ko ci biir julli yàqul julli gi waaw ñaar baag juróom-ñeent mooy man jaathu xayyatun aw aqrabun fa qatalaha fala shay'a alayhi illa an yatuula fi'luhu aw yastadbira alqibla fa innahu yaqta'u salaatahu kuy julli aw ñàngoor traversé ko jaan mbaa jiit traversé ko ñaar yooyu la tudd ñu yóbbaale yim tuddul ci xeeti rab yooyu nga xam ni léeg-léeg ñu sonal doomu aadama màtt nga dee mbaa ñu lugg mbaa nga yuuxu bay bëgg a dee yooyu nag ngay julli ba yàgg jaan jaar ci sa kanam mbaa jiit nga ni fi kupp julli gi daal di rey jaan ji mbaa jiit ji te jëf ji yàggul moyoo fii itam xibla loola yàqul julli gi dara newu ci yaa ngi julli bang mi ngi ci sawet wala aw yet mi ngi ci sawet nga seen jiit sëgg ndànk for yet wi waax waaxu mu dëgër dab jiit ji dóor ko yet wi mu dee nga dellu si waat fi nga taxawoon di julli continuer sag julli loolu dara newu ci bu jëf ji yàgg nag mooy boo ko dóoroon ndekete dalul ma ngay daw nga bëgg a daw yow topp ci xàccaat dóoraat mu mooy mu daw nga dawaat topp ci ah julli gi day yàqu nag ndax jëf jaa ngi yàgg dégg nga mi ngi bëgg a bare itam bu dee dang ko dóor itam mu mooy jaar ci sa suufi tànk romb la jëm gannaaw nga daldi di wëlbatiku topp ko kon yow mooy nga xibla di yow itam julli gi dafa daal di yàqu waaye daal bu dee jëmmi ray gi yàggul dëdd woo fi itam xibla loolu jéggale nañ ko aywa fanweereel ba man takallama bayna safi wal watri saahiyan fala shay'a alayhi wa in kaana aamidan kuriha wala shay'a alayhi ñetti yi nga xam ni dana di dal ki julli jullig naafila te moo ne dara new ci benn baa ngi kii day julli safaak wiitar war a safa sëlmal jóg indi wiitar bañ fa digale dara léegi nag bi mu indee safa ba sëlmal mu wax fii wax ja nag njuumte la de loolu dara newu ci yàqul safa yàqul wiitar gee mu jëm bu dee wax ji moo ko tey nag day safa wiitar sëlmal daal ni soxna si tegal la wala deuxième jóg indi wiitar loolu itam dara newu ci de waaye wax jooju ci diggante safa gi ak witar gi dañ koo sib diggante safa ak wiitar dañ fay bañ wax soxla yi àddina yi dañ ko fay tere ànd ak lépp yàqul safa gi yàqul witar gi fanweereel baag benn man nasiya suurata awil jëhra awil sirra fi naafila wa tadakkara baada rukuci tamaada wala sujuda alayhi koo xam ne day naafila yalu te daa bëggoon a biral de mbaa biral te daa bëggoon a yalu de mbaa mu fàtte aw saar te bi koy fàttaliku rukoo na ba noppi kooku na continuer naafilaam yalu la bàyyi garaawul biral la bàyyi garaawul saar la bàyyi garawul ndax naafila la ndax naafila la bu doon farata kay leneen ay xew dégg de aywa fanweereel ba ak ñaar man nasiya ruknan min annafilati kar rukuuci awi sujudi wa lam yatadakkar xatta sallama wa fala icaadata alayhi koo xam day jullik naafila fàttee rukon mbaa siggee ci rukon mbaa mu fàttee sujjóot mbaa mu fàttee siggee ci sujjóot mu fàttee fatiha yooyu la fàtte fàttalikuwu ko fàttalikuwu ko fàttalikuwu ko ba sëlmal te bi mu sëlmaleeg bi mu koy fàttaliku sax yàgg na diggante bi yàgg na kooku itam naafilaam gi wér na loola mu def tamay fàtte na ko ba mu yàgg mu di ko door a fàttaliku dara nekku ca dara waru ko ca fala iadata alayhi kenn du ko ni naafila waatal ndax danga bàyyi ab rukon wala ab sujjóot loolu itam xam nga ni dana wuuteeg farata ba doon farata kay nga bàyyi ci yooyu benn daañ la ni nangam a ngi ci te mooy da ngay julliwaat rek waaw waaye comme naafile la garaawul baax na fanweereel baag ñett mooy isa sahal maamuumu aw naasa aw zuxima an irrukuci wa huwa fi gayri l ula fa in tamica fi idraaki l imaami qabla rafcihi min alsajdati saaniya rakaca wa laxiqahu wa in lam yatmac taraka arrukuca wa tabica imaamah wa qadaa rak'atan fi mawdi'iha ba'da salaami imaamihi kii day julli ci ginnaaw imaam jot naa am ak imaam ab rakka gannaaw gi nag imaam rukkoon na rukkoon ndax mbooloo mee ko tànci walla boog ngëmmentoo ko gaar ba imaam si gée ci rukkoon dem sujjóoti kooku dañ ko ni xoolal ndax mën ngaa indi rukkoon bi dem indi première sujjóot ba dab imaam avant muy siggéey ci deuxième sujjóot bu ne ah kay loolu mën naa ko imaam julli gi taxu koo gaaw ñu ne la bu dee lool mën naa nekk noonu ngay def indil rukon bi def ci ci war a topp yëpp ba dabi imaam avant muy siggee ci deuxième sujjóotam bu dee nii la demee nii rek ngay def dara warula bu dee nag xam nga ni lii mënta nekk de imaam julli gi daa xaw a gaaw tuuti mënu mu fay di ko dabi su boobaa dañ la naan kon bàyyil rukon bi te dabi ko rek directement waaye na nga xam ne raka boobu imam dala koo rawee bu sëlmalee da ngay jóg fay raka boobu yow itam bu dee nii la demee àndal ak imam directement rek bu sëlmalee nga jóg fay abraka rek waaye dara du la ci war sa jul yàquwul doo fi xabla doo fi baada dégg ko waaw in saha ani sujudi te mooy fanweereel baag ñeent aw zuuxima aw naasa xatta qaama al imaamu ila rakaatin uxra sajada intamica fi idraaki al imaami qabla caqdi rukuuci wa illa tarakahu wa tabica al imaama wa qada rakcatan uxra aydan wa xaysu qada rakca fala sujuuda calayhi illa an yakuna shakkan fi rukuuci awi sujuudi kii ci ginnaaw imaam moom itam imaam sujuud na moom mënul sujjóot ndax dañ koo tànc mbaa ngëmmeentoo ko gaaroon ba imam sujjóot ba jóg taxaw jëm ci beneen raka bu ko wóoree ni mën naa indi sujjóot bi dem fekk imam ci taxawaay bi avant muy siggee ci rukon mën na koo dabi dañ ko naan defal noonu indil sujjóot bi wala sujjóot yi te dem fekk imam balaa siggee ci rukon bee ci rakam boobu waaye bu la wóoree ni loolu mënoo ko de imaam daanaka bi mu sëggee rukon ci ngay door a yëg ni i man su jootaguma te imaam mi ngi rukon nii ci rakaa bi ci topp kon mënoo fi su joot ñaari jug di ko dabi bu dee imaam julli gi xaw na gaaw tuuti dañ naan la kon bàyyil su joot yi dem dabil imaam bala laa rawee beneen rakka ndax bii moom rawee na la ko pare bu dee yow mii la nga dabi imaam directement yow itam bu imam sëlmalee da fay ab bu dee nii la demee ba nga fay ab raka yow itam fala sujuda alayka sujud waru ca dara waru la ca du xabla du baada sa julli itam yàquwul waaye bu fekkoon kay comme nga mentoo gaar dem nga ba yàgg sa xel di werante ci waaman sujud bi daa mel ne ànd kook imam beneen xel naan la àndoo kook imam de su boobaa comme dut googu dugg na la dañ naan laa fay ab raka boo fay ab raka ba noppi ñu ne la tegaale ci baada salaam baada salaam googu li muy jamtalu mooy amaana àndoon nga ak imaam werante gii la dugg dafay jaar rek su boobaa kon rakka bi nga indiwaat gannaaw sëlmalu imaam ak dolli la loolu waral baada salaam bi mbokk yi fanweer ak juróom-ñeent boo ko xàmmee fanweer ak ñeent boo ko xàmmee lu bare dana la gaar ci julli di nga xam rek ni liñ ci waxoon mooy dara waru ci te mooy dara newu ci yàqul julli waralul xabla waralul baada noonu la daara ji toppee téere bi al axdari fi sawbin jadid ci taxawaayu sëriñ Mor Diop ak waa këram ñi ko ci jàppale incha allahu taala téere yaa ngi noonu dañ fexe ba fu waay ne ci àddina bi nga jot ci am na français am na arab léeg-léeg itam ñu borom làmmiñ ñu retax yi ñu jéem ko wolofal waaye borom xam-xam yi dégg-dégg moom mooy ñi ko doon liggéey ba def ko ci téere yi incha allah ngeen baal ñu ba beneen jotaay ci yeneen i masala ki tënkam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.